politique kenn du ci wax waxu koppar te moo ne ay milliards yi milliards nga ciy dégg te kenn xamul ana fan la xaalis boobee di bàyyeekoo amuñu financement public wala sax organe boo xam ne moo koy contrôler ndax clientélisme wala financement yu leerul mën nañu ko moytu lu ci mën ci am sëñ bi war a am lu tolloog juróom benn fukki at ne moom d'accordu ci benn yoon. mais yàlla assemblée nationale mën na ko régir ah. assemblée nationale les députés servent mais ñoom ñëpp bu ñu toogee dans un consensus général ñëpp dinañ xam ne nañu financer parti ah par des cotisations des adhérents quelques particuliers yu am lan la yow la man la yaay bëgg parti bi jël sa alal def ko ci. mu bokk ak moom gis-gis jaaykatu xaal bi moom jàpp na ne financement yi bàyyeekoo bitim réew. di dugg ci parti politique yu Sénégal mën naa indi ay mbirum lobbying waaye tamit ay jafe-jafe. su fekkente ne koo étranger dafa ñëw euh, am mainmise ci politique bi jël xaalis xaalisam teg ko il attend en retour. benn bénéfice wala benn connaissance bi nga xamante ne après au delà fekkente ne kooku dafa dem jël pouvoir bi dina am benn redevance bu nga xamante ne dina ko. ñu fekk ko muy def li mu gën a bëgg saa yu yeewoo muy nafar yéene kaay de famille bi moom jàpp na ne nguurub Sénégal rek. moo waroon di financer yooyu les partis politiques. l'État gère l'argent du contribuable donc c'est à partir de cet argent là du moment que suffrage universel à la présidence de la donc je crois que ne service public la pour man. ab député bu nekkee ci majorité bi euh, ci assemblée nationale ak ñaari woy xibaar ñoom ñoo fësaloon ab versement bu toll ci ñaar fukki millions de dollars bu Qatar. jébbal leaderu opposition bu Sénégal di Ousmane Sonko loole le journal français bi di Le Canard enchaîné dal di fësaloon waaye ay fan a ngi nii ñu gis ne ñu bari àdduwaat nañu ci li nu mel waaye laaj bi mooy ndax cotisation wu ñi nga xam ne ñoo bokk ci parti bi wala sympathisants yi rek doy na ngir mën a dundal parti politique loolu de moo ëlëm ñëpp.